والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk ñi ginnaaw bi sant suñu borom subhanahu wa taala sant bu tolloog màggaayam ñoo ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhanahu wa taala ñoo ngi jéggalu nag mbokk yi bu baax parce que programme bi ñu amoon mooy waroon nañ commencé bu yàgg waaye la ko waral moom mooy suñu borom moom moo def li ko neex parce que moom mooy borom amal mu am la ñu naroon moom mooy dañoo naroon def heure ba ñu waxoon rek lañ naroon joxe mais lañ naroon commencé mais lii mooy gàllankoor léegi nag dañu amoon yéene def benn fàttali bu ndaw bala heure bi di jot pour ñu mën a gañewaale dara ci temps bu yàlla defee tawfiix mbokk yi ñëw ñu continuer programme bi nga xam ne moom lañ amaloon bu fekkee yàlla def na nag maanaam jàppandiwul tim ñu def ko mu nekk buntu boo xam ne dañ koy bayaan ñu jëriñoo ko ñun ñëpp mawdoo bi nga xam ne lañu war a waxtaanee tey nag moom mooy sakratul mawt wa shiddatuhu moom mooy sukuraatu dee ak maanaam taruwaayam xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax naan aksiru dikru hadimu ladvat bari leen li ngeen di fàttaliku yi nga xam ne day rey bànneex yi moo tax keneen ci boroom xam-xam itam wax ci wax ju am solo mu ne war na bépp jullit koo xam ne gëm nga àllaaxira nga bari lay fàttaliku li nga xam ne moom mooy dee parce que kat bokk na ci moom mooy waaraate bi gën a rëy ci waaraate yi ñeel ñi nga xam ne gëm nañ yàlla waaye tim nag dafay maanaam setal xol bi ci mboolem xol maanaam mbiru bànneex waaye tim dafa bokk ci ay njariñam tim moom mooy day rey bànneex yi ñetteel ba ca des tim moom mooy day tax nit ki gàttal ay méwétam ci dund bu gàtt bi defe naa ne kon loolu tam la boo xam ne képp koo xam ne ittewoo na defaru tem bi bokk na ci tem yu gën a rëy yi nga xam ne ci la jullit bi di jaaree pour mën a defaru bismillah
asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ixwat al iman asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu nuyu lislaam ñoo ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala sunu jataay bi yal na ko yàlla boole ci jataay yi mu nangu comme incha allah courant bi ñëwagul te ab jullit moom waxtoom mi waru ko perte te courant warul tardé liggéeyu lislaam xëy na ñun tey ñoo ngi toog di xalaat courant mais démb lislaam yonent bi ba muy liggéey xaarul woon loolu looloo tax ñu toog fi ba ay tàkkusaan wala nit ñi dem ñibbi ñu ne programme bi fomm nañ ko loolu du jaadu ci ñun su ko defee mun nañoo def oralement waxtaan bi après incha allah bi isnillahi tabaraka wa taala bu fekkee yàlla def na ci diggante bi courant ñëw ñu doog a def projection bi thème bi mooy sakratul mawti wa siddati mooy dee métit gi ci nekk ak taraay bi xam ngeen ne doomu aadama yàlla moo farataal ci moom dee laa budda moom doomu aadama day dee laa budda lépp lu am bakkan dafay dee lépp lu dul yàlla day dee loolu moom dafa war a leer borom bi tabaraka wa taala bi mu waxee kullu nafsin zaiqatul maut malaaka yi dañ doon zibile kaw asamaan naan ñun de bokkuñu ci ndax ñun duñu ay bakkan lasna anfusan wa innama nahnu arwahum muqaddasa ñun dey ay ruu lañ duñu ay bakkan ah yàlla ne subhanahu wa taala kullu man alayha faan képp ku nekk suuf di nga dee malaaka yi gën a bég biñ leen laajee lu tax ngeen bég ñu ne ñun duñ dee ndax ñun dëkk ñu kaw suuf ñun kaw asamaan lañ dëkk malaaka yi kan la leen wóor na ñoom danañ dee mooy bi yàlla ne kullu shay'in haalikun illa wajha ku dul yàlla rek da ngay dee kon dee ñépp a koy def dee nag du gàcce ba ñu yaakaar ne ku dee da ngaa ñàkk fayda wala da ngaa ñàkk fulla déedéet dee victoire la ci waa joo xam ne sànkul dundam ku fayawul dundam kooku dee ndam la ci moom moo xam góor la moo xam jigéen moo xam mag la moo xam ndaw ku mu mën a doon ci ñun boo sànkul sa dund yow dee victoire la ci yow parce que xam nga ne fii nga ñëw da nga fee jaar da ngay jàll yàlla moo la fi indi te yàlla moom indi la fi xamal nañ la da ngay dee waaye mbokk yi yàlla moomu def nu wax noonu préparé dee dee dañ koy préparé ginnaaw ba nga xamee ne yow da ngay dee doo toog rek tegale say tànk doo dem tëdd di nelaw da nga koy préparé voyage boo gis borom day préparé voyage bi wala te bii voyage sans retour la da ngay dem dootoo dellusi fan nga jëm yaa ngi jëm barzak yàlla denc la fa at yu ko soob dekkil la yóbbul la yowmal qiyaam kon dee la budda minha fokk ñu dee kenn amul garabam katabal mawt alal xalq yàlla moo ko farataal sunu kaw kon la budda minha li kulli nafsin lépp lu am bakkan ruu di doon di noyyi rek dee dina tegu sa kaw ndeysaan loolu moo leen di wane kattanu yàlla ak pouvoir am mu teg ci kaw jaam ñi loo xam ne jaam ñi mënuñu koo dindi kattanam moom allahu subhanahu wa taala loo xam ne mu teg ko sunu kaw mënuñu koo teggi mooy dee américains yi li ñuy réew réew anglais yi li ñuy kannas français yi di dof mosoo leen dégg ñu ne dañuy éliminer dee ci seen programme loolu kenn mënu ci dara noo mun tamel loo mën a am xam-xam doole alal su dee ñëwee nga bàyyi ko fi dem amoo ci garab ixwatal iman wa hiya shadida jiddan ala alkafirin wa hiya shadida jiddan ala alkafirin dee lu tar la ci yéeféer gis nga ku dul jaamu yàlla buy dee day métti trop sikk nekku ci parce que yàlla moo koy méttil ku dul jaamu yàlla buy dee lu ne nga ciy gis ci ay kéemtaan ak ay mbir yu yéeme parce que daawul jaamu yàlla waaye waqad tashtaddu aydan ayuha al ahbab ala baadi almuminin waaye yenn saa yi tamit ku gëm yàlla di dee waaye mu dee dee yu métti waaw souvent nit ñi def erreur daan ne kuy jaamu yàlla da ngay dee dee bu sedd ku gëmul yàlla da ngay dee dee bu métti déedéet demewul noonu de ku gëmul yàlla moom booy dee da ngay dee dee bu métti loolu moom dafa leer waaye léeg-léeg ci ci gëm yàlla ñuy dee ñu dee dee bu métti waaye luy sabab li rafi darajat wa takfiri sayiat léeg-léeg ci ñi gëm yàlla ñu dee dee bu métti c'est parce que yàlla moo leen bëgg a jéggal seen bakkaar yëkkati seen daraja da ngaa def ay bakkaar yu bari gëm nga yàlla mais def ngay bakkaar yu dul jeex nga dund ci kaw suuf bakkaar yi bari na ba julli mënu ko effacer astaghfirullah mënu ko effacer koor mënu ko effacer aj màkka mënu ko effacer qiyaamul layli mënu ko effacer dara mënu ko effacer nga dugg biir bàmmeel ngay waaj a dee foog yàlla teg la sakratul maut pour mu métti pour mu jégal la bakkaar yi loolu rek moo ko mën a dindi loolu moo tax ñu ne ku bëri bakkaar ba yii mënuñ ci dara nga sukuraat sukuraat bu métti mënu ci dara nga dee mënu ci dara ñu dugal la burba meel ñu mbugal la mënu ci dara foog nga dugg safara état bi yëpp état bi yuy dindi bakkaar la am na ñoo xam ne feebar mooy dindi seen bakkaar loo tax ku feebar yonent bu la seetee day wax laa baasa tahur insha allah du dara yàlla moo lay fóot yàlla moo lay fóot da ngaa tilim da ngaa salte da ngaa yenu ay bakkaar ba fees war a nga feebar waaye boo muñee yàlla fóot la ba nga set su fekkee da ngaa feebar bakkaar yu bëri ba feebar bi mënu koo jeexal nga tane nga wér yàlla tegal la ci ay natt ay jafe-jafe munul nga yow biir bàmmeel ñu mbugal la ko munu ci dara yowmal qiyaam li yàlla wax rek salaamaaleykum fayal projecteur bi ñu pare ndax xel yi fii lay nekk quoi au lieu xel yi nekk ci man te dama bëgg xel yi nekk fii ci man au lieu de table bi incha allah bu ñu demee 30 minutes rek man ma noppi ñu jël projecteur bi ah. aywa bismillah mbokk yi ñu bàyyi xel fii ñu ne sakratul maut nii rek la mun a nekkee mu metti ci ku gëmul yàlla waaye dina metti yenn saa yi dina metti yenn saa yi ah ma ne yenn saa yi sakratul maut dina metti ci kan ku gëm yàlla waaye lu tax gis nga li ma doon wax xel yi nekkuñu fi ngeen fii fa ngeen déglu fii sukuraatul mawti ñett la ñetti xeet wala ñaar ci ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla léeg-léeg mu metti ci ku gëmul yàlla wala léeg-léeg mu sedd lool ci ku gëm yàlla waaye léeg-léeg mu metti ci ku gëm yàlla ki waaye foofu dafa am sabab sabab bi mooy pour yàlla jéggal koy bàkkaaram wala yàlla yëkkati darajaam ci kaw intabihu ixwata al iman kama takunu xaqiqa ala kasirun minhum fa qala taala kullu nafsin zaiqatu al mawt borom bi nee na dee moom ñépp a koy def dee ñépp dee mooy kattan bi yàlla teg ci loosi jaam yi kenn mënu ko dindi borom bi nee na subhaanahu wa taala keroog bi ma xëccee ruu gi ba mu nekk ci dindi baat yi fii ci buli gi nga gis waa ji di xarang-xarang yi xar kuy dee noonu la ngay def da ngay xarang-xarang yi métti lu tax parce que ruu gi fii rek la moo des diggante baat bi ak bopp bi yaram bi moom lépp dee na looloo tax wal tafati saaqu bi saaq bu njëkkatee loxo day wàcc njëkkati tànk mu wàcc wal tafati saaqu bi saaq cër bu nekk day fekki boromam fii la ruu gi yem ci put ci boli gi moom la yàlla naan kalla isa balagati taraaqi giñ naa keroog bi ma xëccee ruu gi ba ci boli yi nga dégg mbokk yi ñu ngi naan man raaq kan moo koy mocc loolu mocc mënu ci dara ñu dem wooyu imam wala ñu woo sëriñ bi mu ñëw jàng xulance bi rek falak jàng bi rek bi naas daal di tofli yàlla mu ne ko dara wa zanna annahu lfiraq kii tëdd fii wóor na ko ne day dee day jóg ci day génn àdduna ñu dem wooyu docteur mu ñëw passé visite takk ay écouteur am fu nekk mu teg fa yàlla mu ne ko kii day dee waaye yàlla mu ne na falaw laa isa balagati lxulquum wa antum hiina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsirun yàlla nee na keroog bi ma xëccee ruugi nee na yéen mbokk yëpp yéen a ngi toog lan moo taxaw lan moo tax du ngeen ñëw ngeen jàpp ci yéen a ngi ni jege waa jaa ngi nii acca jël leen seen i kuur jël leen seen i yat su benn waay ñëwoon dugg sunu biir kër fekk sunu papa toog waa ji yenu paa bi ñu ne ko foo ko ñëwee mu ne dama koy rey te caaxaanul kër gi 30 doomi paa bi ñu ngi fi ndax dañuy toog rek ñu ne waa yóbbu ko dama leen di laaj ah nu ñuy def ñoom ñëpp ku nekk day jóg ku nekk loo jege loo njëkk a jege rek loo gën a jege rek loolu ngay ngànnaayoo allah waaw lu tax malakal mooti bi mu ñëwee jël si paa bi kenn kenn kenn def kenn kenn jógul yàlla nee na wa yéen jamono yooyu wantum tanzurun yéen a ngi xool xam ngeen ne kii day dee yéen ñëpp a ngi nii xam ngeen ko waaye ndeysaan boobu da ngay gis ku nekk ñëw ndeysaan tiim paa bi wala tiim mbokk mi wala tiim ki war a dee naan ko diw man la mu xool la yàlla nee na ma téye làmmiñ bi mënul wax rongo ñi ñooy wàcc rongo ñi ñooy wàcc ay instant nga gis jëbi commencé ñàq dafa am dee dafa am ay mandarga jëbi commencé ñàq articulation yi commencé bàyyeeku boo nee nii loxo bi daa di dellu nga laal tànk bi mu dellu yaram bi commencé sedd allahu akbar nga gis rongoñ yi commencé wàcc ku nekk tiim la nijaay man la jigéen bi papa ñun la dëkkandoo yi diw ñun la waaye nee na ma téye làmmiñ bi tey du wax kon nanu bàyyi xel sunu boroom te fii lii ñuy wax ni ñëpp dañ ciy jaar amul kenn hatta sayyiduna muhammad alayhi salaam jaar na ci yonent bi sukuraat na sukuraat bu méttee méttee métti yaay ay su moo ñu ko doon nettali su ko defee nañ bàyyi xel loolu bu baax ixwatal iman borom bi mu ne wa jaat sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid lii day mooy sukuraat tey mooy mettitu dee mi ngi nii ndeysaan xam ngeen dee lu tax mu doy waar su ñëwee amul garab amatul àndandoo amatul ay xarit amul baay amul ndey amul alal amul doole amul garab gu mun a tax tey nga des jamais boo tukki woon sax sa kër ñu gëj laa gis 30 ans amul xaaral ma dem gis sama kër sax bu doon sax waa police ñoo lay jël si waa police mu ne waa léegi garaawul nañ leen dem ba sama kër dama préparé ñu dem bu fekkee ñu baax lañ sax mun nañu ànd ak yow wala waaye de amul bàyyi ma ma dem préparé ñëwaat loolu lu tax mooy da nga war a préparer bi ngay génn sa kër nga préparer man du ma ñëwaat yonent bi loolu la doon wax Abdullah ibn Omar iza asbahta fala tantazir al masa wa iza amsayta fala tantariz al sabah wa ut nafsaka ah min ashab al qubur aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam yonent doon wax Abdullah ibn Omar bu xëyee jàppal ne balaa ngoon nga dee su ngoonee jàppal ne doo fanaan chaque jour na nga programmé sa bopp ne damay dee tey gis nga soo defee noonu rek sa dund day baax saa yoo gisee benn waay di programmé samedi soir mi fecc teelal mercredi nga gis gars yi def ay track samedi ce soir au dimanche fin du mois ñooñu préparé wuñ dee bis bu nekk xam nga malakal mawti ñaata yoon la lay seet si pour nga dee ginnaaw ba yàlla defaree dee ba pare dafa am ku mu ko chargé ni kii mooy rayaate kooku mooy malakal mawt lan la ñu yàlla wax ci alquran qul yatawafaakum malakul mawt allazi wukkilu bikum malakal mawti nee na kër nit ku nekk dinaa la seet si ci bis bi juróomi yoon cinq fois naa la seet si pour xool ndax da ngay dee tey wala waroo dee tey looloo tax ndeysaan di ngeen gis ci projecteurs yi koo xam ne dafa taxaw di def conférence dee ku toog di waxtaan dee ku sujjóot dee ku dawal oto dee ku dawal avion dee c'est parce que dee gi moo jot su dee ñëwee laa yastaxiruna saatan wala yastaqdimun doo avancer benn minute mais dootoo arrière dee rek su dee ñëwee dee rek am na benn jigéen lu mu gént daf koy gis mu gént jëkkëram di tukki dugg avion avion bi décollé ci kaw rek explosé ñëpp dee mu tiit moom xam na ne jëkkëram dafa war a dem ci vol boobu te xam na ne moom lu mu gént day am mu programmé jëkkër ji pour bu mu dugg ci vol bi fexe ba jëkkër ji tardé di ko waxtaanloo ba jëkkër ji tardé ba mu wóor ko ne avion bi décollé na mu libéré jëkkër ji fekk jëkkër jaa ngi nelaw mu dem di ko yee di ko wax ne li ma la waxoon waxoon naa la avion boobu day explosé mu ñëw fekk jëkkër ji dee parce que yàlla ko programme woon mu dee ànd ak ñee dee ci loxo yàlla la nekk yàlla moo ko jox malakal mawt moo tax doomu aadama yi képp ku am bakkan rek di nga dee nañ loolu nañu leer wa qaala annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna lil mawti sakarat rawahu buxaari yonent bi nee nañu dee dafa am métit dafa am métit yonent bi misaal na ko ñetti misaal mu ne mu ngi mel ne ginaar gu ñu suqi ki kenn reyu ko ñu suqi ko dugal ko ci diwlin bu tàng te kenn rendiwu ko yonent bi ne noonu la deemee ginaar googu lu muy yëg mbokk yi ñu koy suqi mu dund rek metit la rawatina ñu suqi ko noonu muy dund après ñu dugal ko ci diwlin bu tàng beneen riwaaya bi mu ne mu ngi mel ne benn waay bu la tiim yor jaasi fu mu la dóor ci sa yaram dootul dóoraat foofu beneen côté lay dóor ba sa yaram bi daj balaa sa yaram bi di daj lan nga yëg loolu dafa sedd wala dafa métti beneen misaal bi mu ne mu ngi mel ne flèche buñ la dóor mu dugg ñu bëgg koo génne côté bi mu duggee du ñëw suñu xëccee day indaale ay yax ay yàpp lan mooy tane mooy ñu puus ko mu génnewaat beneen côté bi yii yépp ay misaal la yonent bi joxe sakaraat métit yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy bi muy faatu di génn àdduna dañoo teg ci wetam benn këll këll mooy loolu mel ne leket te mu gën a dëgër leket ñu def ci ndox def ci benn musuwaar léeg-léeg ñu wañ musuwaar bi ba mu fendi ñu teg ko ci kanam gi musuwaar bi day wow ndax yaram bi ni mu tàngee léeg-léeg mu ne laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakaraat sell ñeel na yàlla dee moo métti léeg-léeg mu ne allahuma hawwin alayya sakaraatul mawt léeg-léeg fatima yuuxu daan ne waa kar ba abata way sama baay sonn na mu naan ko laa karba bi abik baadal yow ginnaaw tey dootuma sonnati ah ginnaaw tey dootuma sonn loolu moo tax dee dañ koy préparé ba boo deewee après dee doo sonn xam nga kan moo torox mooy ki perte àdduna sonn dee dem yowmal qiyaamati sonnaat léeg-léeg nga romb ci bàmmeel yi doo romb sax da ngay ñëw ci bàmmeel yi tiim benn bàmmeel ñu bind ci ici reposé wala kan moo ko fi mës a gis ah yow gis nga ko ah ah gis ngeen ko waaw kan moo leen ne dafa reposé foofu ici reposé kan moo leen ne dafa reposé kan moo dugg ci biir xam lu mu nekkee ah kon kenn war ko fa bind ah kan moo leen ne mu ngi waa ji day noppalu ku ko wax kan xanaa déggu leen yonente bu ne alqabru rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufari naar yonent bi nee na bàmmeel ñaar rek moo ci nekk benn mu nekk jardin ci jardin safara yi benn mu nekk xur ci xuru safara yi jardin ci jardin aljanna yi wala mu nekk xur ci xuru safara yi jardin ci jardin aljanna yi wala xur ci xuru safara yi loolu mooy bàmmeel yonent bi nee na rubba qabrin yu ukaf wa saahibul qabru fi naar léeg-léeg nga gis benn bàmmeel bu gaa yi daw di ziyaara di yuuxu ndeke borom bàmmeel bi mu ngi safara loolu moo tax yonent bi di tere ku tabax bàmmeel bàmmeel kenn waru ko tabax lu tax su fekkee borom bàmmeel bi mu ngi safara ñu koy lakk ñu tabax bàmmeel bi ba mu rafet ban njëriñ la ko amal am na njëriñ su fekkee waajaa ngi aljanna mi ngi xéewlu ñu tabax bàmmeel bi ban njëriñ la ko amal amul ko njëriñ moo tax bàmmeel kenn du ko tabax ñun nag dañuy tabax rek semaine yee passé seetaan ngeen Malik Abdullah bu mu faatoo buuru màkk ñan ñoo gis suñ ko suul ci internet bi est-ce que tabax nañ ko simple sotti def ci ay xeer béton yu weex yi jeex na kenn def fa tableau kenn def fa brique kenn def fa karo kenn def fa dara fii nag gars yi dañ koy tabax def ci boo demee yoof da ngay gis ay étage ay étage ci ay bàmmeel nga gis étage nga gis karo maanaam nit ñi ni ñu mel ci àddina bi boo demee ci bàmmeel yi gis ko àddina bi da ngay romb kër yu rafet ah bëla kër yu rafet yu luxe karo yu tàkk boo demee ci armée li gis ko fii di nga romb yenn saa yi ay baraak wala ah wala ay kër yu amul bunt wala boo demee bàmmeel yi fee gis ay bàmmeel yoo xam ne si ndax yi ñoo ko gas bàmmeel boobu seeni borom xam nga kañ lañ fa gëj biñ ko suulee kenn ñëwaatu parce que kooku pauvre la amul dara miskin la wala kaana la bi mu nekkee ci àdduna moo tax bàmmeel bi kenn du ko defar wala gis leen loolu man de gis naa ko ngeen demee bàmmeel yi nit ñi ni ñu mel kër yi ni ñu mel ci àdduna nit ñi dañoo bañ ba dem ci bàmmeel yi def lu mel noonu moo tax yàlla naan alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqabir waaw bëri lante alal daf leen yitteel ba ngeen dem ci bàmmeel yi di ko fa wone ku nekk di di won ne man sama parent borom alal la comme ñun ay borom alal lañ ay richard lañ foog ñu defar bàmmeel bi ba mu lix ba mu rafet ba bàmmeel bi bu ligsee rafet fekk waajaa ngi safara ban njëriñ la am ixwatal iman mbokk yi ci yàlla fa naasu isan yatafaawatuun fi zalik nit ñi dañoo sutante ci dee ci méttitu dee nit ñi dañoo rawante am ñoo xam ni dañuy nelaw rek jaar fa dee waaw yeneen bi alayhi salaatu salaam nee na ruux bu ñu koy génne ci yaram am na ci ñoo xam ne day mel ni ci ñoom puso bu ñu doon ñawee te fasuñu cat bi ci ginnaaw waa ji di boros rek di boros di boros di boros ba puso bi fees su xëccee wëñ bi nu muy def daf koy topp lu tax taxawul bi ñu ko xëccee parce que fasul woon takkul woon fin wëñ bi noonu xëccee boros bi mu génn noonu la ñuy génnee ruwaa yi dañ koy wax unzur maqaadaka ila aljanna xoolal fi ngay tëdd aljanna su xoolee rek ñu xëcc ruu bi yonent bi nee na nga gis bët yi daal di topp ruu bi di dem waaye nit kuy dee yàlla dina la yónnee benn cortège u malaayika ay malaaka la la yàlla di yónnee cortège juróom ñooñu la yàlla giñ ci suratu naziat wa naziati xarqa mbooloo malaaka lañ ñooy ñëw ci yow tiim la wa nachitaati nachta bu dee kii dee ku baax la wa naziat ñooy ñëw bu dee kii dee ku baax la wa nachitaat ñooy ñëw a naziat mooy ñan mooy malaaka yi nga xam ne bu ñëwee di di faat ku baaxul ku daawul jaamu yàlla ku xamul woon diine dem soirée moo ko gënal dem jàkk dem stade moo ko gënal dem jàkk dem làmb ja moo ko gënal mu dem jàkk xamul woon yàlla yaali la xamoon boo ko ne yàlla dinaan waaye woo góo way woo non way taluma loolu booy man maa ngi ci town bi booy yow seer nga xamoo nu mu demee doo naan di te branché woo ah yow yaa branché yàlla mu ne nag tey ma débranché la tey ma branché la ci foofu jahannama da leen yàlla dimbali gis nga yooyu noonu da lay tardeel nga jàpp ne yow yaa nekk ci olala booy faatu nag ah jeexal nga yàlla yónnee la wan naziat ñu ñëw wër la yàlla mu ne giñ naa ci malaaka yi nga xam ne ñooy buddi ruuxu kàccoor yi dañ koy buddi xoolal tey kenn ci ñun fi mu toog suñ jëloon pince pince ne ko ŋaaŋal mu ŋaan ñu ne dañuy buddi bëñam ñu kepp ne dañ koy xëcc nooy def allahu akbar wala waa ji ñëw rek fekk fi nga toog mu kepp sa nopp bi nga ne ko looy def ni mu ne dama koy buddi allahu akbar mbokk yi lan ngay yëg wala mu ñëw rek jàpp sa baaraam bi nga ne ko lay def ni mu ne dama koy buddi dana metti de léegi nag ruux gi la ñuy buddi moo tax su ruux bi gisee malaaka yooyu day daw day jóge ci bopp bi dem ci tànk yi su gaa yi demee ci tànk bi mu daw ñëw ci ndigg li su gaa yi ñëwee ci ndigg li mu daw dem ci bopp bi ñoom duñ fa nekk di sonn suñuy ñëw dañuy indaale ay pince ay ràbb yu nuroog sartu xam ngeen sartu xam ngeen sartu ku xam sartu luñ koy doyee dañ koy gubbee malaaka yi loolu la ñuy indaale bu ñëwee fekk waa ji fi mu toog suñu bëggee génn ruubi ruubi di daw rek ñu capp ko ci ruubi daal di koy bis loolu la yàlla naan wan naziaati xarqa giñ naa ci malaaka yi buddi ruuxu kàccoor yi ruux googu buñ ko buddee ba pare dañ koy jël lëmas ko ci ay sagar ay morso yu salte yu tilim loolu la ñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam di nettali ci xadis bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na innal mu'mina innal abdal mu'min o kii mooy ku baax ki ñu njëkkee ku baax ki innal abdal mu'min ida kaana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi min as-samaa malaa'ik بيد الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة الله يلا نجعل دف ني فكي كو باخ موي ген ادنا ملائكه داني دم فردوس ملائكه يو لير با دانيو ملني جانت ني نيو ليري ci tar dañuy dem aljanna firdaws ñu indi fa ay torson yu set wicc di xeeñ parfum bu dàq misk indaale say bagage yi ñu lay yi ñu lay yi ngay génne àdduna allahu akbar indaale fa musuwaar yu xeeñ bu ñu ñee fekk waa ji fi muy faatoo ñu ñëw wër ko ndeysaan kenn ci ñoom mooy jekki-jekki moom mi yàlla jox mbirum ruuy te muy malakal mawt mu ne ko xoolal sa kër biir aljanna su xoolee rek ñu daal di rocc yenent bi nee na al aynu tatba'u ar ruu bët bi day topp ruu di xool ba yaram bi génn bët yi daal di aju ñu daal di delloo ñu daal di jël ruu gi ñoom ñooñu daal di koy laxas ci musuwaar yooyu ñu indi woon muy ruugu xeeñ gu neex ñu yégal kaw asamaan moom lañ yonente bi dina teli mu ne wa xanuut min xunuutil janna xatta yajlisu dañu ñëw toog ci wetu waa ji end raas yi waa jaa ngi tëdd ñu toog ci wetu bopp bi ndeysaan di waxtaan ak moom lan lañ koy wax ayatuha nafsu tayiba axriji aw uxruji ila magfiratin min allah wa ridwan yow bakkan bu sell bu teey génnal ci sa ndigalu boroom ñu daal di xëcc ruugi daal di koy laxas ci serviette yooyu ruugi daal di génn fu ñu ko jëmee ñu koy yóbbu ci borom bi tabaraka wa taala ruugi asamaan bu mu romb rek waa asamaan boobu daal di koy tagg ñu ne waa kii kan la ñu ne borom bakkan bu teey bu sell boo xam ne yàllaa ko jéggal war ridwaan fa taxruj fa tasiilu kama tasiilu alqatra gis nga ruugi ni muy génnee mu ngi mel ne ndox muy toq ndox muy toq ni muy gaawee ci gutt bi wala ci bën bën bi noonu la ruugi di génnee amul benn problème fa taxruj mu daal di génn yàlla mi ngi bëgg ci ruu boobu asamaan bu gaa yi romb rek ñu ne ruuxu diw doomu diw jaamukatu yàlla jàngeen alquran yàlla mu ne am na ñoo xam ne dañoo dee fama bakat alayhimu sama asamaan jooyu leen ñii nag asamaan da leen di jooy loolu moo tax abdullah ibnu omar bi yonent bi ne bëri leen fu ngeen julli ci suuf ndax suuf si la leen di seede moo tax moom bu julli woon farata ba pare loolu ngeen di gis paa yi bu ñu jullee farata ba pare ñu reculer dem beneen place bu ñu julliwul ci biir def fa deux deux rakk moo tax di nga gis benn waay boo xam ne jàkka yëpp taxaw na ci jàkka yëpp taxaw na ci foo calculer ci jàkka ji taxaw na fi def na fa ñaari rakk loolu moo pare mooy mooy waral déplacement yi def fi soo jullee sa farata ba pare nga reculer dem loolu nag yow mi bëgg a góorgóorlu da ngay fexe jàkka ji ngay jullee jàkka ji taxawal fépp fépp xanaa fenn xanaa fenn mooy fi imam bi di nekk balaa gars yi naan la ah léegi da ngaa bëgg a nekk imam waaw ndeysaan ñi ñooy ñu baax bu ñu yóbbee ruugi ba ci yàlla ruubi daa di nuyu yàlla tàgg ko bakk ko kañ ko atahiyaatu lillah atayibaatu salawaatu lillah yàlla daa di fay ruubi daan ne malaaka yi delloo leen ma ruugi yóbbul leen ma ko illiyin waaye balaa ngeen koy yóbbu yóbbul leen ma ko mu fekke sang gi ruu ñu baax ñi ñu ngi koy denc illiyin bu dee ruu ñu bon ñi ñu ngi koy denc sijjiin kalla inna kitaab al abrar la fi illiyin kalla inna kitaab al fujjar la fi sijjiin ñu baax ñi illiyin la ñuy denc seen ruu yal na yàlla boole sunu ruu ñu bon ñi sijjiin yal na insha allah musal ruu gi day dem ci yàlla bu dee ku bon mooy dee yàlla ñan la yónni wan naziat ñi bëf bifru kooku waxoon naa leen ko sànq bi mu faatoo moom waa jooju lan mooy xew mooy ruwam bu buggee yëg dem kaw asamaan ruu gi du dem ruu gi du dem kaw asamaan lu tax parce que ruu gi baaxul su buggee yëg dem kaw asamaan dañuy tëj asamaan yi yàlla mu ne bakkan bu bon bi ruugu sob gu bon gu sobe gi delloo leen ko ci yaram bi mu fekkee sang gi ba ñu sang ko ba pare ngeen yóbbul ma ko si jiin moo tax képp ku dee ñu lay sang ci morgue bi ruu baa ngi taxaw di xool bu dee ku baax mi ngi xéewlu bu dee ku bon ñu ngi koy mbugal ba ñu sang ba pare ba jullee ñu daal di yóbbu biir armeel yi doomu aadama buy dund ci àdduna bakkanam mooy jiite suñ demee barzaq ruu bi mooy jiite buñ demee àllaaxira ñoom ñaar ñooy ànd suñuy mbugal ñaar yëpp la ñuy mbugal suñuy bànneexuloo ñaar ñëpp la ñuy bànneexuloo waaye fii ci àdduna tey ñun ñii fi ñu toog nii di dund suñu bakkan moo jiite moo tax ñu war a xeex ak bakkan yi poñe ko an nafs ka tifl bakkan mi ngi mel ne xale buy la nàmp xale buy nàmp soo ko feralul ci ween wi day nàmp ba màgget moo tax yenn saa yi nga tekki jeeg nga dégg ku leen la imam sama doom ji dama ko bugg a feral ñu daal koy yenu yóbbu ko yóbbaale mburu mooy lan tey day bàyyi nàmp xale boobu ñu jàpp noonu forcé ko fal force mu bàyyi nàmp taqale koog ween noonu la ñu war a def suñu bakkan yi tàqale koog mooy yàlla suñu jàppul suñu bakkan yi poñe leen tere leen mooy yàlla duñu mus a bàyyi mooy yàlla parce que mooy yàlla dafa neex li gën a neex ci àdduna mooy yàlla ci la bokk xoolal ngay def loo neex am sa liberté xale bu jigéen boo gis bu la neexee nga nekk ak moom xale bu góor boo gis bu la neexee nga nekk ak moom di déglu musique di fecc di sol lu bon di def lu la neex sa bakkan bi am liberté maanaam sa bakkan bi doo ko tere dara lu neex bakkan bi rek yow neex na la looloo gën a bon ci àdduna yàlla subhaanahu wa taala dafa bëgg yow ginnaaw bu mu la mayee xel nga poñe sa bakkan ne ko man jaamu yàlla laa dooma jàdduloo poñe ko ma jox leen benn misaal bu gàtt koor bu ñëwee koor kan moo fi musa woor weeru koor am na fi mus ku musa woor weeru koor ci saal bi ah dafa mel ni ñaari nit ñoo musa war da ñaari ñoo yëkkati seen loxo ñett ñeent juróom ah ok ñëpp woor nañ waaw koor bi mu jotee ñun mbokk yi nan la ñuy def suñu bakkan bi ñu xëddee ba pare ba mu leer nañu xëdd nañ nee nañ asalaatu xayru min an nawmi nan lañ def suñu bakkan danga ko poñe nga ñëw gis ndox mu sedd nga xool ko ne ko ndox sedd nga trop waaye nag di nga xam ne man dama woor mënuloo ma dara alaysa kazalik nga ñëw gis ceeb nga ñëw gis fii école am ñoo xam ne wooruñu ñu ngi jaay nga ñëw romb leen affaire bi xeeñ nga ne ko waaye yow man dama woor gis nga xoolal da nga poñe bakkan bi wala ba kañ ba ban heure amaana sax yenn saa yi benn xale bu jigéen ne la Cheikh nga ni ko eh xanaa yu nga mu ne eh baal ma dañu fàtte koor laa léegi mu dama woor de waaw baax bu doon wooroo wala bu doon wooroo bu la nee fekk nag léegi bi nga wooree nan nga def bi nga wooree mbokk yi nan nga def wii la ma bi nga wooree noo def da nga poñe bakkan bi def loo ko lu baax poñe ko ba mu dëgër ne ko fekk koor gi jeexul doo yàq sama koor man nga xeex ak moom waaw léegi bi koor jeexee lan moo tax yow léegi mënatoo mënatoo poñe bakkan bi defloo ko li nga ko doon defloo ci weeru koor lu tax moo tax amuñu lay ci kanamu yàlla ëllëg ñun ñëpp bu nu neexee ñu jaamu yàlla dañoo lànk rek ñun ñëpp dañ bu nu neexee laa wax ñu jaamu yàlla waaye seytaan lañ topp dañoo bëgg a bégal seytaane dañoo bëgg a ànd ak seytaan loolu moo tax ñu libéré ko mu ñuy def loolu ko neex ñu fàtte dañoo war a xeex ak bakkan bi yàlla subhanahu wa taala ci alquranul karim saar bi gën a gudd ci waat bi yàlla waat mu nekk suratu sams suratu sams ñu jeexal bi jël projecteur bi balaa courant bi di demaat yàlla waat bi mu fa gën a waat mu rëy mooy qad aflaha man zakkaha giñ naa ci sama màggaay man yàlla képp ku setal bakkanam texe nga dugg nga aljanna lan mooy setal bakkan mooy nga poñe bakkan bi ba du def bakkaar su defee bakkaar sax nga tuub jéggalu yàlla pour yàlla baal la ko mbokk yi li gën a dangereux ci àdduna mooy nga dee yóbbaale ay bakkaar biir bàmmeel wallahi wallahi ku yóbbaale bakkaar biir bàmmeel wallahi yàlla dina la mbugal te bàmmeel mbokk yi xat na xat boo xam ne yonent bi nee na inna almayit ida wudia fi qabri wa tawalla anhu ashaabu mu ne ataahu malakaan ku dee ba ñu dugal la ca bàmmeel ba nit ñi ñibbi yonent bi ne ñaari malaaka ñëw ñu yëkkati la nga jóg toog ñu commencé di la laaj ana ñi nga doon àndal ana noos ana sorti ana musique ana jëngal yi ana kiris karas yi ana ana ana ana aca nañ ñëw gisatoo kenn la yàlla ne tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw zallu maaka ma nafauk walam yabqa laka illa ana wa ana alxayu allazi la amut wala mu ne gaa yaa ngay ñibbi bàyyi nañ la fi gaa yaa ngay dem de copain yi ñëpp a ngay dem xoolal bi ñu la suulee rek gaa yi kenn du ges ndeysaan xoolal gaa yi nga doon àndal guddeeg bëccëg lu nekk fu nekk jaar ngeen fa lu nekk def ngeen gaa yaa ngay dem kenn gestuwul amu sax ku fi toog benn temps non non sama copain kii duma dem déedéet bu waa ji bëggee toog sax benn waaye moo ñëw nan dem nan dem nan dem nan dem nan dem daal lay xëcc ndeysaan nga nekk fa di jooy jooy lu tuuti daal dem léegi ñëpp dem nan ndeysaan ñu bàyyi la allah kun la bàyyil buur bi nga doon tooñ mbokk yi benn sàcc sax bu nekk ci benn dëkk wala benn agresseur bu nekk ci benn dëkk wala benn assassin bu nekk ci benn dëkk muy def lu ko neex di def lu ko neex police di ko wër gendarme di ko wër ñëpp di ko wër ba ñu jàpp ko ñu mënote ko yóbbu ko police ñi ko jàppoon daal di ñëw nag ba kaso ba police ba daal di koy jox commissaire ñu toog ñu def rapport bi ba pare yow lii yëpp yaa ko def mu ne waaw maa ko def de gars yi daal di ñibbi moom fu mu jëm ah kaso ana ñi nga doon àndal di def lu bon loolu ñëpp daw nañ noonu la dund gi mel nan leen ragal yàlla bu nu àdduna jay nekk jeune yéen a ngi nekk ay jeune tey ku nekk di takk tubéy di bonde di dof doflu booy ñëw fi dafa ne bu asamaan dooy daanu wane yàlla ah mu tee asamaan yàlla dana tekk di la xool rek te yàlla dafa bëri yërmande dafa yërmande moo yaatu boo tax mu bàyyi la ngay def la neex waaye xoolal instant yi ngay def la neex yàlla bu ko neexoon bu yëngalee sa benn bëñ rek da ngay toog suuf ndeysaan dem tëdd allah ñu ne lan la doot xoolal wax sax dootoo ko mën a su bëñ bi continuer metti une semaine nga commencé jeex deux semaines trois semaines nga commencé futi ana ñi nga doon àndal kenn nanguwul ñëw toog fii yëpp dekk ak yow ñëpp dem nañ doxi seen soxla dañ leen jaamu yàlla dafa am lu ñuy xaar lu rëy gis nga yéen a ngi nii di jàng ku nekk bi ngay jàng xam nga ne am na jour bu lay xaar muy ah dañuy dund am na jour bu ñuy xaar tey dund mais examen mi ngi lay xaar est-ce que nga ne classe examen di la xaar da ngay fo est-ce que loo neex da ngay def sa leçon yi loo neex nga def bu la neexee nga jàngi bu la neexee doo jàngi bu la neex nga topp ci tefes géej gi topp ci xale jigéen ñi topp ci xale góor yi déglu musique fi dof doflu ba jour examen nga ñëw ñu bind question yi nga naan mais est-ce que li fekkee na est-ce que li jàng nañ ko mais prof bi gars yi dañoo juum gars yi benn waay ndeysaan benn waay bu doon jàng moom benn waay bu doon jàng ba mel na dof day da lay xool de da la wax yow soox nga naan ko lii lii est-ce que ci programme bi jeexoon na waaw waa ji daal waay sa waay may ma tuuti ma ñëw man jël picam jëm commencé su bindee ñëw ñoo la ne la toogal boobu gis nga xam nga yow li lay xaar kon noonu la jaamu yàlla mel nañ leen jaamu yàlla nañ leen jaamu yàlla gis ngeen jaamu yàlla ku ko deful da ngay perte yàlla moo nu indi fii kenn indi wulu fi d'accord ngeen ci loolu yàlla moo nu bind kenn bindunu yàlla bi mu nu indi fii kan la tàggu kan la yàlla tàggu ne ko waaw dama bëgg indi diw dama ko bëgg yóbbu cheikh dama ko bëgg yóbbu fële mu dund kan la yàlla tàggu kenn bu la yàlla di rey kan lay tàggu bu la dugalee biir bàmmeel ba ñëpp dem malaaka yooyu ñëw di la laaj allahu akbar te su ñëwee dañ naan la jógal toog nga jóg toog ñu ne la maaza kunta taqulu ala hadha al abdu muhammada loo doon wax ci muhammad yonente bi amal mumin bu dee ku gëm yàlla la fa yaqulu kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bil haq min indillah man seede woon naa ne muhammad avant tout jaamu yàlla la yonent yàlla la li mu indi woon dëgg la ci yàlla la ko jëlee gis nga bu waa ji waxee loolu ci biir bàmmeel kaw asamaan la ñuy dégg benn baat bu yuuxu naan sadaqa abdi sama jaam bi wax na dëgg lalal leen ko lali aljanna ñu yaatal bàmmeel bi dóoral la lali aljanna yi allahu akbar sa lekk di ñëw sa ravitaillement di ñëw gis nga moo tax ñi nekk foofu di noos ñu ne leen xaar leen tuuti rek léegi yowmal qiyaam jot da ngay gis malaaka yi indil leen serv seen ration ñuy lekk dañu naan malaaka yi waaw yowmal qiyaam kañ la ñu ne ah ñu ne bu ngeen demee ngeen ne yàlla dina rey nit ñi yowmal qiyaam jot ñun dañu bëgg a génn fii fii liñ fi def am na ñeneen ñoo xam ne allahu akbar suñ leen laajee amal munafiq naafiq kaafir maza kunta taqulu ala hada al abdu muhammad mu ne ah la adri la adri xaw ma ko xaw ma ko malaaka yi ne ko laa talayta wala darayta xamoo yàlla boo xamati yonente bi nee na fa yudrab dañ ko dóor bi mitraqa min hadid benn bol de weñ fa yasihu sayhatan yasma'uhu man yalihi illa al ins wal jinn dana yuuxu yuuxu boo xam ne ñépp a koy dégg ba mu des nit ak ginne yuuxu boobu metti na de kon nag loolu moo nuy xaar li ñuy xaar du rek dund gu ndaw gi ñuy def lu ñu neex va et vient dem après non dafa am lu rëy lu ñuy xaar comme kuy jàng lu rëy lu mu lay xaar sa kanam koo gis muy muy liggéey sax am na lu koy xaar fin du mois kuy jàng am na lu koy xaar fin d'année kuy dund am na lu lay xaar après boo deewee loolu nag dafa jar a préparer incha allah ma gàttal foofu ma bàyyi sama mbokk bi jël naa genn wàllu temps bi yëpp